xam nga waxoon na la ci gannaaw ne amin baadi xalqi zaati wal fiili rabbuna yumaasilu hmm? gis nga ko aafil mujrimina salibu tey nag mu ne la alaane wér na ahsin na nga rafetal al amala say jëf say jëf na ko sellal te rafetal ko waalaw na nga ni nag bi annama ne bi annama ne bihi ca rafetal boobu noonu mu téye on ci ngay toppee yàlla lam yaati bés boo nit ki indiwul loolu le rafetal boobu noonu fa huwa boromam la oo bu ne tuddee ne kii dafay fo ak lu man dem na comme la ngay def rafetul rek dañ tuddee ne kii dafay fo kon alaa ne wér na ahsin na nga rafetal al amala say jëf waalam na nga xam ne bi annama yow de bihi ca mm-hmm. jëf bu rafet ba ca bu rafet ca rafetal boobu mutiya on ci ngay toppee yàlla mm-hmm. bu mm-hmm. ci lay doona yàllaa ko digle lam ko indiwul uh-huh. fa huwa la mu ne boromam nag dafay fo caaxaankat lañ koy konte jalisu malikin rafetal bi tax li tax ma ne la booy jëf nang ko rafetal ndax jalisu ku toog malikin ak buur malikin mm-hmm. ku toog ak buur mm-hmm. dañuy wax nag yàlla rek moo yelloo bar bu nag maliki mm-hmm. dañ ko itlaak nag jaizan ci nit comme buur arab sax ñu tuddee comme maliki wala déet waaye yàlla mooy dëgg dëgg nag malik moo tax gis nga ko inda malikin muqtadirin bi maqaadi sidqi inda malikin muqtadir yàlla moo gën a yelloo malik ñeneen mën nga leen tudd malik sax men dafay gën a gis nga ko istiaara kon jalisit ki toog malikin ak bu mag lam yàkk bu fekkee nekkul mu ta addiban ku yaru taridun dañ koy dàq te dàq ba yému fa zalilun dana torox te mu fa zaxirun dana gis nga ko dana dana dana danañ ko tuuti lu waaw mooy dañ ko yab waxa jibun te danañ ko iir ba du ñëwati moo tax jëf ko booleeg rafetal jëf na nga ko booleeg rafetal ndax buur boo toogee moom jëf te rafetul mu ne doo toogateeg moom jaliisu ki toog malikin buur lam yàqu bu nekkul mu ta addiban yaru taridun danañ ko dàq jalilun dana torox saagirun dana yablu wa xajibun te danañ ko iir ku toogateeg buur xaajib mooy xajib hijab mooy kiiraay alaane aha kañ njool raqib na nga seetlu al yàlla mm. lax dari wax la ne wa tax bi muraqabati mawla toujours del bàyyi xel yàlla al yàlla bi nga dara réeru ko al mooy nga xamante ne moo tiimu lépp di gis lépp xam lépp man lépp muhaymin ki xam lépp man lépp tey xam gis nga tey gis lépp sayyidi te kooku mooy suñu sàng fa nema man de ñeena muti on kay topp yàlla raqubun te bàyyi xel lil xabiri ki ko xam nga su fekkee ne lay topp xamu la sax mm-hmm. Mm-hmm, mu neex a naxe waaye fa ne ma man de ñee naa alaaji Maalik mm-hmm. mu téye on ka nga xamante ne dafay topp lil xabiiri topp yàlla raqubun dafay bàyyi xel lil xabiiri yàlla di ko xam kon ki topp yàlla xam ko bàyyi xel ne yàlla mu ngi koy gis te xam na ca la mu nekk mu ne kooku man ñee naa ko parce que bés boo xamee yàlla mu ngi lay gis rek moo tax waajo moom ñëwee ci sëriñam ne ko dama bëgg daal nga jàppale ma bakkaar daal def ma sonal trop ma bëgg nag lu ma ko jafeel hmm. mu ne ko bés boo demee bëgg mooy yàlla lakkatu fu mu la dul gis nga def mu ne ko fan mu ne ko nu mu lay gisee nag nga di koy kon loolu war na ci bàyyi xel wala déet hmm. ki bàyyi xel toujours moom moo ne ñemewul mooy yàlla hmm. fa in tasale dunia bés boo laajoon adduna tey jii mu war la tontu fa inna sururaha mbégteem mm. yahudu dafay walbateku delsi mm-hmm. azaban doon mbugal mm. yattaqihi war na koo moytu nag mbugal boobu du mm. àdduna de damir bi dellul ci àdduna yattaqihi ay dina moyta nako mbugal boobu adibun ki xam ki xam parce que adib danay firi ñaa ñett xamante ne gis nga ko dafa am yar ci biir jëflante ci biir jëflante comme am na ca yar nag waxin ba rafet mm-hmm. tuddee borom ne adil kon moo tax ne la mm. fa in tas ali dunia tey jii boo laajoon adduna mm. mu war la tontu mm. dana la wax ne fa inna sururaha mbégteem yahudu dafay déppaat bu déppaatee di doon mbégte de azaban bugal lay doon bari na fi lu dugg génn du moom mm-hmm. te da nga dugal mu génn si doon lan bant kon lu dugg génn lu dul moom bari na fi mu ne nag bés bu la indilee mbégte daf lay jural lan azaban mbugal wala déet mm-hmm. te yettaq yi war na moytandiku mbugal boobu mm-hmm. adibun koo xamante ne am na xel fa in tas al boo dépassé laajaat ad dunia adduna mm-hmm. dana la toon fa inna umuraha mbiram ba mu jeex même nguur ga ka adaxaade dafa mel ni ay gente ahlamin ay gente caaxaan adaxaasu ahlamin kaalu bal bal kaalu adaxaasu ahlamin ada xaasu ahlam buñ la ko waxee parce que ruya dafa am ñetti façon wala de ah dafa am ruya sadiqa dafa am adxaasu ahlaamin dafa am hadithu nafsi dafa am ngént bo xamanteni saxé la ca nek ñu ngént ko dafa am des fois ñu da koy gént bi faru di xala be far ku gént mu ne wa in tasali dunia dafay dal xale fa inna umuraha bi lam ka adxaasu ahlaamin xanaa gént yu naxi mbay la mm-hmm. badat seen kasi na nii da nga di koy gis mm-hmm. dina jàkkaarloo moom nii bu mm-hmm. taxee bu fàdduwaat mooy li ma la wax léegi rek gént saa gént saako xaalis boo yow da ngay gis saakoal kii yow gisoo adduna noonu la mel badat da ngay gis nii wa taxee bu fàdduwaat taxii bu la xul wataaye bu bu taxee bu nga de fa in tasali dunia bés boo laajoon adduna si daa bi fa inna xalaalaha la la ca dagan xisaabu la ko toppee foo ko jël yemu fa de wa la téye danañ la téye arrêté la xabsu mooy mooy kawalaa dañu muy kii rek police ñëw téye ko xam nga lañ koy tuddee mooy téye ko waaw mooy teg ko loxo ah adduna ah, bu daga ne ci yow te nga ñëwee ma sax laaj la taxawal la lii foo ko jëlee moo tax ñu de xalaaluhaa xisaabu wala xaraama bés bu nekkee lu xaraam nag mm-hmm. xam ngeen ko aqubun mbugal rek kon adduna boo ko laajee hmm. dana la wax ne fa inna halalaha hmm. la dagan ca moom xisaabu hmm. dina laajte bi nga bëgg a dee wax xab suñ gis nga ko teg la loxo mooy pini la wal xaraama boo fekkoon na ba mu doon lu xaraam bugal rek fa tas al bés boo laajoon adduniya adduna mu la tontu fa inna gis nga la nga am axafu moo gën a mm. oyof mm. janaaxan mbagg mm. lil baxoo di la nga xam la ñuy tuddee gis nga ko baxoot mooy mooy kii boobu dinaaw njanaaw boobu kii kii sonal li ñëw yow yow moom yow la la xalu bunte dafa mën a naxaate dafa mën a naxaate comme noonu ngay def si mais foog nga yow mu fent la def fa in tasali dunia boo laajoon adduna fa inna wasanaha poids a xafu moo gën oyof sena moo gën a oyof loolu ñu tuddee mbag yoo te dañu wax ne mbagg yo moo gën a oyof li oyof yëpp parce que xam nga boo jàkkaarloog yow doo gis mbagg li gën oyof mooy yoo gis nga alquranu karim mu ne maa ba maa basalan ma nakal tëdd di ina laa laa sa ay ndiri ba masalan maa baaxoo datan fa maa fawqaha gars yi dañ foog ne fa maa fawqaha ay ay muus ay gëlëm diggite wa maa fawqaha nga mooy lan gars yi gëstu dañ dem ba gis ne dafay am téye gën a oyof janaxan mbagg lil ba odin loolu ñuy tuddee gis nga ko waaw loolu ñuy tuddee nu mu tuddati sax kii yoo xalu mu dafa mën a naxaat fa in tasal boo laajoon addunia adduna fa inna alladi daxa la ca neex la ca neex mm-hmm. masuubul mm-hmm. nga def ñu mu masuubul dañ ko jaxase bi durrin lu naqari wa bu'sin ak lu metti wal balaaya ak natt mm-hmm. adduna ittasali dunia bas bu laajo adduna fa inna alladi taxaa coca cola boo koy naan moo lay def la coca cola moo def la mu noonu fa inna alladi taxaa ba ca neex masuubul dañ koo jaxase bi durrin ak loolu ñuy tuddee la lu metti wa bu'sin ak lu naqari wal bala ay ak lu wala de fa kay fa yakunu xawma foo mën a jëlee alfarahu mbégte wal mawtu te dee munzaru mu ngi nii yow la yaa de yaa léegi yow noo mën a <coughs> de waaye gannaaw dee sa ahwaalu rada tiitaange yu la mën a sànq wa kurubun ak ay njàqare mm. war nga rëy fa kayfa naka yakunu lay doonee njool alfarahu nga war kontaan mm. wal mawtu te dee munzarun mu ngi nii yow lay xaar mm. munzar mooy luñ la tegal mu di lay mm. wa min baadu gannaaw loolu le mooy dee ahwaalu tiitaange rada yu la mën a sànq wa qurubun ak ay kon ala le wér le wér te wér te wér ba taxit na nga jël adduna def ko maabaran muy bi xa war fa romb wala amiran waroon nekk woon naa da ngay tabax ci kaw pont bi boo ko buggee sax ñu bañ ba tëddi ci suuf mm. ci kaw bi nga bugg ko tabax ñu dàq la ak sa la mm. mm. fi jaar boobu tabaxee booy dee rek ñu jël sànni fe loo fi tabax sa doom yi moo tax mu ne mm-hmm. alaa ne wér na taxita jëlal adduna maabara muy sa pont mooy jaar waay abiram biha nga war fa jaar wala amiran bu fa jéem a tabax mm. waalam na nga xam bi annaka yow fii mm. garibun dëkkuloo fi mm. foo dëkkul nag loo loo am def ci àdduna loo am def ci àdduna waaw <laughs> bés boo toxoo fa nga jëm nag sa dëkk loolu lu jar a bàyyi xel moo tax buur boobu mooyee borom xamoon ne ko lan moo tax ñu ragal de mu ne ko yéen ñi a ko ragal waaye ñun ñi ragaluñu mu ne ko lu tax kon ñun ñu ragal de mu ne parce que da ngeen defar seen adduna mm-hmm. mabbu seen àllaaxira ngeen di bañ a génn fa ngeen defar mm-hmm. dem fu ñu fu ngeen defaru mm-hmm. waaye bu dee ñun nag comme suñu adduna dañ ko mab defar suñu àllaaxira ñun li ñu gënal mooy jóge fii rek dem mu ne ko ñaan ma sa soxla mu ne ko tëddee moo ko defal mu ne ko waaw waaw loo bëgg ma defal mu ne ko bu ma woowaati xoolal ma li <laughs> jàppale